waaw njiitu réew mi di Macky Sall dafa la daal di tànn te bu la tànnee nekkul rek lu tuuti dafa la tànn ndax nekk nga candidat bu coalition benn bokk yaakaar ci euh, membre yi nga xam ne ñoo nekk ci coalition bii ñoom ñëpp ñoo la yëkkati daal di wax ne yow la ñu tànn ci ab congrès boo xam ne ca lañ investir kon tamit am nga daal li nga xam ne mooy lu taxaw ci say wagg maanaam li nga xam ne mooy combat bi tax. victoire bi kat gën a leer ci bu coalition benn bokk yaakaar ak majorité présidentielle la. li ma leen mën a wax rek mooy ñaanal la suñu ñaan gunge la ngir daal lay souhaiter bonne chance te itamit rek di sàkk suñu boroom moom mu taxaw la gunge la ak ci xol bu féex.